Assalamualaikum waa wa rahmatulah. ñu di siar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. di siar réew mi ñëpp. Mhm. waaw di leen wax ni wu réew dem na kën waxi mag dem na ngeen taali bàgg war na mbaam looy doon jaay ma la mu xeey. pur mhm. ngeen gisee la waraloon poosaay bi. Ah, dégg nga ak taxawaay bi daa amoon lu tax. waaw parce que saa waa ji la gaa yi ñafoon seen waaw asalaamaaleykum. di wax ziar di leen balu àq ci tardement bari bari mais sant waa Sénégal tam maa leen nuyu baax a baax a baax di leen gërëm di leen tamit waaw bul jooy bul jooy gis naa la nga doon daj foofu noonu waaye bul jooy euh, jaam moom dogal lu mu lu yàlla dogal moom jaam ci dara. Ah, yàlla ku mu bëgg lay teg natt ku mu bëgg yoo teg natt. ah ji damaa pattu. waaw damaa wéetoon. mais barke sëñ Bamba da ngay sama wéetal. Mhm. damaa wéet. Mhm. premier jour ba ma nee rëng sa kaso ba rëbës. wallaay wallaay seet la sama yaram daa daw. wallaay wallaay sama yaram summeeku. ma pattu. xam nga ne oto boo ma di pënë du dem yaay sa pënë damaa wéet dëgg la waay wallaay xool sama garab bi sama comprimé wallaay deux cent vingt cinq loon lii nii deux cent vingt lépp mën naan ko eh, waaw waaw parce que nag lépp man naan ko ah la la nga wax yow sax man sama yow li loo defoon ba gars yi ñaf la sim sànnaar baal noonu baal noonu baal noonu ah dañ maa taxalu ci benn xale bu jigéen comme ngaa ko benn ngaa ko waxoon naa man moom ñoo ñoo nekkoon beneen yéen a bokkoon sàmm ñoo nekkoon sàmm kon nekkoon sàmm ba ñoo fa demoon ak moom. ah. ba ni ngeen daan lekk nii. ah ay walaay balaa ñu def maanaam woo. ay ah, fu mu déggati foo de yi. ah, ah ko de. may de bu soobee yàlla fu mu déggati euh, loolu moom naa ci duggaat moom ci kàttanu yàlla. loolu moom. waaw li ma daloon bu jigéen ba. ah yow am nga jom yow. yii. yow sa tëddum kaso. googu plaisir moom dama ca ba jeex. ah waaw loolu du commentaire du ma si débat. googu googu pérésil moom gune gune gune bu ko amatee ci quatre ans du ma ko jël imam sax bu ko amoon du ko jël. loolu lenn dinaa la ko yëgal. Uh-huh. satatum kaso day man naan li ma si financé si xaalis. ah boo ma ko joxee ma jëndi citerne. waaye sant yàlla rek sant yàlla. yow alhamdulilah sant yàlla sant yàlla bu baax a baax. waaye nag lenn laa la bëggoon laaj bi may ñëw seen koñ bi xamatuma ko. aywa jox ma la ko. ah kay fi ne kay nag moom bu dëgg neexee yàlla rek yaraax moom ñëw ñu kenn ñun daal lenn suñu cat. mooy lan. am embouteillage bu amee. gis nga oto yi ni ñuy dugg si tali bi. gis naa ko dañuy ñëw dugg si suñu ruq yi. gis naa suñu raaraan ba gis nga ko fi ne nii. Mhm. loo to gis nga ko booy booy booy booy asawaat bi. kii jaay fi waaw man naa ne la lu mu am na rek poussière bi xombal. raaraan nan ñu si dimbali ci yàlla tax. moo tax ma ñëw suñu kër kay gis ceeb bi mu xonk mu ni cóot ma ne xanaa suñu ceeb bu xonk ngeen toog ñu ma ceeb bu yàq li ma gën bi la. li ma gën a metti nag lenn rek la yaraax gone yee bari nama yalla bal baal comme machine buy defari gone fi ne moom dafa yàgg coow tey est-ce que teur yi goudi gis nga ko. lol loolu tubaab fa ma sha allah ñak insécurité kon mo fi am nga bëgg wax. insécurité moy la té manam ñak karangé mo fi. merci. jeexna na ñu si dimbali. lol am ci dëkk bi té inshallah allah ko man génnoon na moom. bu soobee yàlla moom lu ma ko def inshallah allah. doy nga ma si waaw doy nga ma si comme que euh, travaux commencé na mom nañ ci gorlu poussière gi ak soj bi poussière gi ak soj bi balaa nawet bee jot. balaa nawet bee jot. waaw yéen ngaa mi bu ma ko gisee rek sama xol jeex. bàyyi ka soo continué bul jooy baal yooyu baal yooyu. ah jàngul kenn nag. la teegali liif bégg naa ba kii war fa kàlla macha allah. kay dañ ma won cëb taat panda par kaat. ah waaw loolu la magum jëmm nag waruñu koy dóor. Ah, waaye sant baax na yërmande ji xale ba xale ba fa jaar. waaye nag léeg-léeg naa la koy gëm. mooy lan wërsëg de yaa ko ëpp si réew mi. mooy lan. jënd lundi mardi mercredi pétrole feeñ si réew exactement nag waaw não ma dama noonu sama combat la génn naa kaso mais dinaa fa duggaat xamaa ndax loolu parce que sama <laughs> combat la ay man waxuma wàllum politicien yi waxuma wàllum opposition bi wala wàllum nguur bi waaw suñu pétrole ñun ñoo koy gérer suñu bopp waaw waaw waaw ñun ñoo koy gérer suñu bopp waaw parce que lu ñëw Sénégal dañoo tàmm lu ñëw rek borom alal yaa say gën a yay amul baadoola beeg mu euh, euh, euh, nga xeeti ku dul baadoola ñëpp si bokk yam te wax yaraax gii defi di pétrole du jeex barke borom daaru Njaay. te wax ji ma dégg dafa ma metti mooy. cere cerey cerey patron rongañu baax la koy séen. ah loolu moom du jóg si réew mi. ah kooku moom sa jamonoy déggoo. kooku la ñuy ger nag kooku la ñuy ah. ger loolu noonu noonu laa fas yéene ñu génnaat man euh, feef fañ bañ ñafoon man ma. waay waay bu la fa ñafaat. Ah. ba ba ñafaan ma fa la fa jaru ko. nañ ma fa ñafaat nag. gis nga lii. ah combat askan wi la Sénégal yëpp. war a jóg amul Paata Njaay ak Mor Njaay. ñëpp war a jóg waaw man bu fekkoon am wàllu. lacrymogène du dara askan wi ma ñor. lacrymogène du dara daan naa dékku ay quarantaine lacrymogène man kese ci kanam laa am toll. moo tax moo demee moo tax moo demee moo tax moo demee wàññi naa man yow ma ne ko man fu ma wax baax àdduna tukki bu muy yuuxoo miiri ma ah. bu daal ma lenn daal man moom moom moo ma jaaxal si réew mi te dinaa ko wax mooy lan dégg nga Sénégal mhm. pétrole comme ça feeñ na gis nga essence bi. Maliens yi fii la ñuy jëlee seen i ga gasoil ak. c'est pas normal Mali gasoil ba fa la gën a yokk dëgg yoon. gasoil mënut a jar cinq cent quatre-vingt-quinze ñu yokk ko ba six cent quatre-vingt-quinze. essence bi ko sept cent quatre-vingt-quinze. mënut fu Libi ba ba ba ba fayatun dara. fu ñu jëm ndax pétrole fu ñu jëm moo war a waaw teg ko ci yoon Sénégal neex semeur yi mën a teg mën a teg ay ngir yàlla yonent bi Baaba Njaay man ñoo dimbali si yàlla ak pari foot lu mu nar a jox xarit eh, xoose ko pari foot. Baaba Njaay moo dëkk moo dëkk fële mu damay dégg turam. Baaba Baaba Njaay moo dëkk moo dëkk Baaba Njaay ñoom ko naay portugais. dëkk fële yaraax képp waaw jeex na. moo dëkk yaraax képp yaraax képp xarit ah. lu mu jox xaram yi rek. joué ko pari foot c'est pas normal dégg moo yu euh, euh, euh, yu mu kerem pee jaataayam yu saa li muy yor man. man man fu muy fu li muy xam nga senegal dañoo yabaatee li muy fi fi muy jëlee li mu yor war war nañu ko wax. gone gu ndaw foo jaar ak sa kos jàpp ci ab xaalis bu mu fees teel bay këpp. man dégg dégg si ñu waroo tax lu leen woo. ca doon ram dégg naa daa takk Fuuta la takk te li ma dégg dégg naa jabar ja huit cent huit cent ko may. million bu manqué fanweeri fanweeri junni. yow fu mu jëlee. yow xëyoo gonto bu nit ñuy xëy. yaa ngi nelaw bu nit ñuy wàcc nga takk say kos di fongol fongol mbedd yaa yépp nga gis nga. dina leer dina leer day leer. réew mi dina leer réew fu mu jëlee dinañu ko wax. jëndaat naa day leer. salaamaaleykum wa rahmatulahi maa ngi leen di sant di leen gërëm wax leen nag bii nag moom. bi la mais ca kanam. deuxième bi bi soppi maa ngi ñëwaat ak force. ñaar sant naa leen gërëm naa mi tiwoon na loolu waaye. waaw ma te jara ngeen ma jara ngeen ma ko. waaw waaye foofu mën naa ko mos a mbokk. jërëjëf jërëjëf. sant naa si yéen